bisimila waaye accident yi day ah kañ lay jeex est-ce que solution am na ca termine yéene kaa ne ñeenti doomu aadama day ñoo dee ci accident ci ñaari fan laa la wax allahu akbar dama ne la ginnaaw ñett ñi nga xam ne kon ñoom ñoo dee ca foor bale waaw Mariama Ñas day nit deewaan na fa démb mu waay révélation yéene kaa ne waaye jumtukaay yi nga xam ne tam moom la ñu war kon mu gaaw loolee it war nañ cee wax de quatre heures de temps ngir jëlee fi benn tata boo xam ne daa daanu rek quatre temps yéene kaay ne BRT ba day waaw daal dinañ koy lancé démb nag laa la wax alhamdulilahi rabbil alamin critique yéene kaay ne en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo day bañ leen laajee waaw xam leen nañ ne kaar yi neex ma de lool am na kaaraange waaye bi itam seer na déet waay sur sa année alaaji Malick Ndiaye day waaw moo ko lancé démb les fa yéene kaay ni ko ba nuppi daal di xam le ne junni ci ay biis yoo xam ni gaz a leen di dawal dana dikk sur sa année ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne la alaaji Malick Ndiaye na waaw dootul yàggati danañu lancé kon benn projet boo xam ne lu ci tolloo ñaari téeméer ak fanweer ci ay milliards a cay dem quatorze lu ëpp junni ci ay kaar yoo xam ni gaz a leen di dawal def président bas kay a moom na es affaire baa ngi dox liggéey muy dox le témoin yéene kaane li taxul kay waaw mooy dem ngeeg dikk gi ci jaww ji billet avion yi tey seer nañu lool lool lool waaye dund ko seer gi fan la ci gaa yi toll ubil vingt quatre heures yéene kaay nañu waa pale ba day nee ma état bi waaw ñoom daal léegi nee neen riz brisé bi non parfumé waaw mburu mi suukar si su moo kusee diwlin bi lañ teg ba daal ngir jéem koo wàññi wal fajir ne gis nga dund ko seer googee ak wàññi ko waaw gouvernement bi day daa mel ni dañoo wàññi seeni ambition de nga ni nee nañ ci non parfumé bi lañ yem di ak mburuma suukar su wokk see diwlin bi rek laa seen a gañi saaxoo waaw nee gis nga wàññi dund googee nii nii nii nii nii daar daar daar daar daar loolee daanaka mënta nekk laa la wax aha Dakar Times ne gaa yi mënuñoo wàññi dund gi la wax déet waay yéene kaa yi mu baan bi ne gis nga Ousmane Sonko mi ne mën na de waaye tuuti la mën Sonko ba ba en tout cas conseil des ministres ba démb day waaw termine yéene kaa yi nee na lu jëm nag ci wàllum dossier yi tàng yi ministre de la justice Ousmane Diagne ne day ñoo doon caxa-caxatee suñu alal ji laa la wax mille milliards yii ci wàllum corona gi maar day taali waaye yeneen rapport yi nag deux minutes yéene kaay ne gis yéen édition waaw ay opposant milliardaire boo sàgganee rek maar day taali gars yi sàng leen ah, ah. dañ de parce que Babacar Ngom Sedima mi lé boo sàgganee day lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay hectare ndenge leer dana ko ñàkk ar d'Italie Bougane Gueye Dany boo sàgganee redressement fiscal gars yi indil ko impôt mar d'Italie Barthélémy Dias mi lée boo sàgganee day dana perte mairie bu Dakar gars yi ñemewuñ loolu maa la wax li lée yéene benn Matar Diop bi ne gis nga ñii ma lay bëgg limal day ca procureur lañ jëm de maar di taali Amadou Ba Milé ak kan Cheikh Kanté ak kan Cheikh Oumar Anne ak kan Abdoulaye Seydou Sow ak kan Thérèse Sey Diouf ak kan Mamour Diallo ak kan Mansour Faye ak kan Mahmoud Ba ak kan Farba Sarr ak kan Mambay Niang ak kan Abdoulaye Diouf Sarr ak kan Abdou Karim Sall ak kan Diop Sy ak kan Maguette Sène ak kan Mbow ak kan Mamboy Diaw ak kan Pape Malick Ndour dama ne ñii boo sàgganee ca procureur lañ jëm bale ba dikk na de dama ne bale ba dikk na sur quotidien ne nomination yi day ca ministère yi ak yeneen direction yi waaw bale wu joomaay fay ba day ma nga continuer ba léegi nii la crise yi yéene kaa ne dama ne la nomination au poste civil day joomaay waaw bale na secrétaire généraux ak ay directeurs généraux waaw waaw en attendant nag ñu dugg ci wàllum détail boobee waaw dama ne la njiitu réew mi day jublu nañ ci farata gi laa wax daal di fal nag ay postu civil day ngir neexal ñi nga xam ne kon maanaam ñoom ñoo ko doon jàppale loolooy dëgg Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw la politicien yi nekkoon day fa le cotise pas njàcc pas moo tax it Lamine ñaa dem SA Habib Sy PCA Sénélec réew mi quotidien la fi Macky tegoon day moom la ñuy démaquiller maa la ko wax le témoin yéene kaa ne talin gi dee ngi mel ni tulleeg man de laa la wax aha waaw waaw Aïda Mbodj Habib Sy Dame Mbodj Manga moo dem Lonase capitaine a ASP Mariam Soda Ndiaye jamono la ñuy ñëpp dugal nañ ci ay bërëb yaa xam mbay bale Yoro Moussa Diallo bale Aboubacar Sadiq Bey bale Kibili Touré bale Sorakos Teneng Faye meeru Njaga Ñaaw nga xam ne moo daaneeloon Bassirou Diomaye Faye waaw Diomaye daaneel na ko de Cheikh Bakhoum bale Soursaane est-ce lu tolloo juróom fukk a ñaar ci ay doomu aadama day la Bassirou Diomaye Diakhar Faye fal ni ki démb ñaf looloy dëgg de ay DG secrétaire généraux ba ci agence judiciaire de l'État Aïda Mbodj DER ku Gueye bale Amadou Mbaye Guissé agent judiciaire de l'État ku mu remplacé Yoro Moussa Diallo bale Habib Sy a Sénélec ana ku mu remplacé Serigne Mbaye bale Elimane Pouy Sogepa SN ku mu remplacé Yaya Abdoul Kane bale Baba Amadou Ba 3FPT ku mu remplacé Madame Sophie Diallo bale Ndane Diagne Sonacos SA ku mu remplacé Kibili Touré bale Abdou Diouf ANSD ku mu remplacé Aboubacar Sédikh Bèye bale Isidore Diouf société Sénégal numérique SA ku mu remplacé Cheikh Bakhoum bale Lamine Niang Soleil ku mu remplacé Yakham Mbaye bale Dame Mbodj Sosib SA ku mu ONAS ku mu remplacer Doura Baldé bale Juma Kobor ANER ku mu Tamsir Ndiaye bale Seydina Omar Touré ASC ku mu remplacer Mamadou Salif bale Fatima Mbeng ONPN ku mu remplacer bale Mariam Soda Ndiaye sécurité alimentaire ku mu remplacer Ibrahima Diaw bale Modou Mbène Diop ASEPEX ku mu remplacer Zahra Iyane Thiam bale Cheikh Ahmed Bassirou Sané horticulture ku mu remplacer Macoumba Diouf bale te secrétaire généraux yi ñëwaguñ direct news ne ministère des finances day waaw directeur de cabinet ba moom it jëlee nañ ko ba de Babou Oumar waaw waaye Sonko ak Pastef de waaye nag dañ ne daa jege woon tam Ba moo l'info yéene kaane waa affaire day ña waat nee nañ pour jëlaat nguur gi termine yéene kaa ne waaye Amadou Ba tamit day am na lu mu nasoon ca Paris gële de waaw waaw évidence yéene kaa ne nees def nag ba téye Bokk Yaakaar ak punkali Amadou Ba ak Macky à la guerre comme à la guerre ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw te jamono joo xam na ña ngi ca wàllum politique ba day Walf Fadjri nee na waaw wàllum santé publique wér-gi-yaram ah. hôpitaux yi ci réew mi day dañoo manqué oxygène de maar di taali ngelaw lii ñuy nooyee nii waaw dama ne amul ci hôpitaux yi laa la wax El Hadji Assane Ba nee na lu jëm nag ci wàllum occupation littoral bi lée monsieur le président tojal tojal il faut démolir tojal li na ci littoral bi tojal moom ëpp na di <laughs> waaye tojal googee dee ak lu mu ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp